jërë ngeen jëf mbokk yi tax na dellu Sénégal gannaaw bañ leen nuyu rafetlu na ngeen di toppee suñu bi ngeen informé wu lépp loo ci réew mi ak ci bitim réew seen acte ak Viviane mu amaat beneenub ñu nommé ko meilleure artiste féminine mu mel ni nag delluwaat na ci États-Unis ci la nga xamante ne moom moo di beneenub compétition mu daal di cay rek jongante ak yenn ci ay yu mag a mag yu ñu daal di ràññee waaye moom nag la reine du Jolof Band moom moo jëlaat raw gàddu ko rek mu daal di doon ah, trophée bu mu daal di am rek ci wàllub musique daal di doon ah, fierté Afrique waaye tamit ah, fierté Sénégal moom Viviane Chidid li ni mel nag la daal di def gis nañu ak délégation ba nga ne ñoom ñoo daal di ànd ak moom rek ca Kigali àndaat ak a foofa ca diwaanu États-Unis bokk na ca kii di Mbacké Dioum Pape Cheikh Diallo wala sax a yu ci mel ni a Boucher Ketchup gunge ko rek a la nga xamante ne moom moo di bile compétition mu demoon rek foofa ca diwaanu diwaanu États-Unis gis nañu nag gannaaw raaya ba ak Pape Cheikh Diallo ku ne xam na ko rek na mu fidèle lool ci kii di Viviane Chidid nam ko daal di félicité rek di wax sax naan léegi ñamu yamal niveau rek mooy yenn ci ay artistes yoo xamante ni sax nekkatuñu Sénégal waaye doon artistes yoo xamante ni rek ràññe nañ leen bu baax a baax ci àdduna bi yëpp moom Viviane Chidid gannaaw la nga xamante ni sax bokkoon na ci nominé rek mu daal di jël li ni mel mu daal di doon trophée boo xamante ni rek moom laa leen di jëlaf Band daal na koy mérité lool foofa ci diwaanu États-Unis la ñuy des rek kon xam na ne bu sëkkee cëpp waroon na bëri rek ci combat bi nga xamante ne moo am rek ni ki démb ci arène nationale Eumeu Sène ak Tapha Tine a daje sax kii di a waaye a li ni mel fekk ko ca diwaanu États-Unis ñu koy gis rek kii di Zeyna Ndour na mu koy tooñee rek di ko wax a xanaan dafa daw bile combat rek ñëw foofa ca diwaanu États-Unis gannaaw bu si di sinap tooñ rek nga xamante ne moom moo di Zeyna Ndour Modou muy àddu rek ci bu Cheikh na nga xamante ni sax daanaka daal na koy dawee rek bile combat dem foofa ca diwaanu États-Unis bu ñu ci Viviane Chidid ñu wax ci beneen artiste muy Titi moom moo nekkoon invité Kebs Thiam ca invité d'honneur foofa ca télévision Futur Média occasion rek ci kii di Titi daal di rek dellusiwaat ci carrière am tamit musique ba nga xamante ne moo koy def rek muy wàllu mbalax moom Titi nag ci ay kàddoom mu wax sax naan amul benn mbalax pur et dur lay def bu ñeneen sax di daal di a jël yeneen façon musique moom ca mbalax ba rek ca lay des te daal dinay fier rek di def musique ba nga xamante moom moo di mbalax li nay génne rek album daal koy duppee rek 30 ans déjà gis nañu futur yi nga xamante ne na cay am rek muy Wally Balago Seck kii di Sidy Diop ak yeneen artistes yoo xamante ni rek moom def na ak ñoom featuring rek ci trente ans déjà daal di rek remixé waat yenn ci ay son mu daal di doon lu neex lool lool nag occasion moom Alioune Mbaye Nder ñu daal di koy invité rek ci 2STV ci émission confrontation gis nañu nag question ya nga xamante ne Bijou Ngoné daal na koy posé rek waaye tamit la nga xamante ni sax jëm na ci a showbiz nga xamante ni sax kii di Big Taf moom moo ko daal di laaj rek lii or si a ci ay célébrité mu mel a ah, Bijou a daal na a bloqué bi les questions daal di wax sax ne moom elle est mal placée rek di wax ci ah, mbirub divorce ndax divorce rek ñeenti yoon wala nag ba bi les questions ñu daal di koy esquiver rek tontuñ ca benn yoon waaye tamit moom Alioune Mbaye Nder delluwaat bu baax a baax rek ci carrière a nga xamante ne ci wàllub musique wax ci nekk ci série Cœur brisé moom la gis noonu rek la belle Aïssatou très bien habillé en a daal di rek partager de nouvelles photos séduire bu baax a baax ñi di ay flowsam gis nañ ko ak image yu rafet yi nga xamante ne moom ci kër brisé rek dal ci ak doomam bu jigéen bi di Daba Mbaye mu mel ni nag li ni mel ñu ci bëri ñu nga koy rafetlu rek ci internet bi à chaque fois rek ñu daal di affiché wu gis nañu Sankara Mbaye ak kii di doomam na mu koy sax tooñee rek mu daal di doon complicité entre père et fille doon lu rafet loola anniversaire bu comédien bi di jogoy la ñuy waxtaane mu mel ni nag yeneen moroomu comédien bi daal nañ koy defar rek ab surprise teew ci bésam bi bokk na ca Baye Gaya Ngor ak yeneenu artistes yoo xamante ni rek daal nañuy defub surprise rek ñëw ci anniversaire bu jogoy Oustaz Modou Fall gannaaw émission Midi Plus bi yoon nag mu ngay attaque rek jigéen ya nga xamante ne respecté wuñ seen borom kër li ni mel bokkoon ci yenn ci ay thèmes yoo xamante moom moom la doon waxtaane rek ci midi plus moom nag à chaque fois rek ay waxtaanam doon loo xamante ni dafay daal di jur polémique rek gannaaw nga xamante ni sax moom bi yoon mu ngay wax rek jigéen ña di leen ñaaxaat rek ñu gën a occupé wu rek ci seen i borom kër gis nañu tiktokeur bi di Gueye No Stress dal di rek defoon a vidéo mu mel nag kii di Adamo moom moo ko daal di partagé rek li ñu mel nag ñu ci bëri jàppoon ni sax ay vidéo lomotif la waaye nag mu mel ni genre bad buzz rek la daal di doon gannaaw ginnaaw ba nga xamante ni sax moom Gaynoo Stress ab tournage yu film la rek mu mel ni nag ab deal daf ca daal di am rek mu daal di fay kii di Adamo ngir rek mu daal di wax ci bile vidéo ba vidéo ba ba Adamo di ca wax sax ñu ca bëri jàppoon ne rek ne ab lo motif la waaye nag dara amu ca tournage yu woon rek waaye ñu nga ci sax koppar yoo xamante ni rek moom Gaynoo Stress daal na koy rek jox Adamo ngir mu daal def rek bile vidéo yàq ko ca lu mel ni xeme rek comme si ab vidéo le motif la waaye nag li la mel dara nemu ci rek ab buzz rek la ñu doon wut. kii di Balla Gaye 2 teewoon na ni ki démb ca arène nationale loolu nag occasion la rek moom mu ci carrière am waaye tamit wax ci làmb ya nga xamante ni sax daanaka moom moo ko fa andiwaan rek waaye ñu daal di koy laaj rek yenn ci ay question d'actualité bokk na ca Nit Doff ma nga xamante ne mu nga ko doon attaqué rek jamono ji ci internet bi moom Balla Gaye 2 mu daal daal di ignorer nit dof ndax xamul sax kuy nit dof li mel nag la daal di tontu rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon laaj la mu leen wax nag lu simple moom xamul kuy nit dof gannaaw ba xamante ne moom génn na rek yakk bala la gay lu mel ni xemee diwaanu wa la ñu jëm ca maison d'arrêt et de correction ba mu mel ni ab prisonnier moom moo fa daal di rëcc rek di wuyoo ci ND Faye moom nag mu nekkoon sax ab ex détenu foofa ca diwaanu mag bu Mbuur gannaaw nag ñu daal di koy transféré rek ca prison bu Tiwaawan mu mel nag moom ah, dafa daal di profité rek ca moment ba nga xamante ne ñu ngay amal corvée ba rek ca 18 heures ngir rek daal di yéeg ca miir ba ngir mën a daw mu mel ni nag ca yoonu mbuur ba lañ ko daal di tegee loxo rek gannaaw ba nga xamante ni sax ca a bañ doon am rek 18 heures ci la daal di profité rek ngir daw Sadio Mané ab vidéo mu nga circulé ñu gis ko rek mu ngay jubilé ñu ca bëri rek naan dafa andoon ak kii di Tapha Tine waaye nag mu mel ni moom moment ba nga xamante ni sax mu nga doon jubilé rek ca làmb ja mooy yooyee moment ba mu ëmb seen daal di dóore rek Tapha Tine ba mu dem ca Ardo moom Sadio Mané nag ah, ca la doon jubile rek ñu daal di gis ah, di rek doon luy rek ca internet ba gannaaw ba nga xamante ni sax moom jamono ji ah, mu ngi ci diwaanu Sénégal rek ngir rassemblement ba nga xamante gaynde Sénégal ñu nga koy amal rek ci seen match yi ñuy waajal CNG daal dinay décoré Ama Baldé ak Modou Lo loolu nag bokk na ca fair play ba nga xamante ne wane nañ ko rek ci seenu làmb gannaaw nag Ama Baldé ñàkk bi bile combat gis nañ nag na mu accolade Modou Lo ñaari mbër yi nag daal di saafonte mu daal di nekk geste boo xamante ne amateur yi daal nañ koy rafet lool waral nag ba ni ki tey CNG daal leen dalal rek décorer leen ci loolu ñu daal di def mbokk yi safontoon ñu teewlu li leen ñaanal yoon seen actu du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal close notification bañ rete dara suñu information jërë